ay ca mbokk yi mi ngi noonu diggante caatu Moussa jum ak Jams journée Jam production waaw waaw dimanche le 13 août 2023 arbitre baa ngay wax ak ñoom caatu Moussa Dioum moo ñu woon gannaaw toj na nen arbitre baa ngay wax ak ñoom Jams lañu jàkkaar lool caatu Moussa Dioum moo ñu woon gannaaw ndeysaan rakk la ci Moussa Dioum ndeysaan mbokk ndeye koy jur boo xoolee xaat xaatim gu xaat xaatim gu weex ga mu teg takk ca dënn ba la Moussa Dioum doon takk ca dënn ba ndeysaan mbokk ndeye koy jur maa la ko wax rakk ah Gandia Fama ñëw na ah Gandia ko andi eh attention arbitre souffle na xeex ba commencé ñoom ñaar daw nañu jàppante caatu Moussa Dioum Jams caatu Moussa Dioum Jams waaw waaw ñoom ñaar roofoo nañu caat am na ngemb am na benn loxom ci ngemb boog jam sama attention jam sa ngay mboot xale ba bañ na la ilaha illallah caatu Moussa Dioum jams caat am na benn loxom ci ngemb attention dara amagul jege nañu saaku ya asamaan saa ngi dalin ndox xeewal la caatu Moussa Dioum jams lay bëreel rakk la ci Moussa Dioum ndeysaan yàlla na ko suñu borom yërëm te jéggal ko Moussa Dioum ndaanaan la woon champion la woon ñoom ñaar jàppante nañu tegante bopp ndengeñante la ñu def caatu Moussa Dioum James attention mboot lay lax kar caxabal oh caatu Moussa Dioum caxabal na ko daan na ko ba toog ci kawam daan na ko caat daan na ko caatu Moussa Dioum daan na